Leewtoo TV dañ leen di nuyu di leen ziar Talla Ndiaye nag tey fii a taxaw defe naa xam nga fii ma taxaw ay moto ngi nii yaa ngi dégg fii nag ab garam place la am na mbër mu mag mu fi ne su ma jumul atlet bi borom a ah, daal waaw mu ngi noonu daal mais Lamine gis naa fi sax Lamine Lamine Lamine mu nuyu ko Lamine ci loo ne. maa ngi nii di la ziar di la. bii garam place mooy ban. si atlet la. ana Balla dafa ne. waaw si biir toog. kaay wan ma ko. dugal avancé rek jàdd nii def benn war mbii rek non jarul nga may yóbbu rek Balla gi nii. Lomfor. Dom doy. bëgg naa la. na waar. nice am nga jàmm. waaw maa ngi sant ana Omar. Balla Gaye mooy ne toog <laughs> taala taala kon Omar a ngi nii góor yàlla maa ngi lay bëggee ci <laughs> Omar Omar rek ngi reetaan waa kii du kii <laughs> gaa taala gaa <laughs> place yi ah, man est-ce que ma ci Maga Cheikh sax fii daa mel ni neex na de garam place Maga Cheikh seen garam place bi daa mel ni ala daw me de waaw place bi day ala daw yaa ngi toog sa tête de file xamu yéen ñaar kan mooy tête de file école non man eh. kan mooy tête de file. kan mooy de file école Balla Gaye. jeex na man maay de file bi. yaa ko jàngal bëri. ma waaw non kii kii moom jàngalu ma ko bëri day day sóob de jàngalu ko bëri waa kii ñoo jàngandoo bëri quoi waaw waaw. a ngi noonu. c'est bon ma. dama leen fekk ngeen di toog nii kon sa fii lay toog sax ngoon si atelier bi fii. waaw fii lay toog sa waay chaque jour fii lay toog ci place su lin fii lin sec mooy place bi. waaw nekk koo xamante ni xam nga nit ku baax waaw mooy loolu sawaay tamit nekk nit koo xam fii lay toog chaque jour ba ngoon mu doog a dem këram waaw parce que tamit xam nit moom xam am na leen loo xamante ni su nekkee si yow Baye Fall moo nekk ci moom ak yaatu fii lañuy toog waxtaan kaf wax ko lu ne mu dégg fi lu ne tamit te teewul xam ni mu mel noonu lay mel quoi waaw parce que tamit xam mooy loolu. waaw non luy moom xam na ni loolu dafa yàgg te lu la yàgg la te tamit mu nekk nit koo xamante ni tamit xam nga dama dama yàkkamti woon sax xama boo ko moom jataayu mel ni ba mën a wax ci moom loo xamante ni xama mooy loolu ñoo yareendoo màggandoo mais musul changé nii la mel musul changé man musul changé keneen nii la mel non non man lu ma neex laa koy wax lu ma neex laa koy def mais tamit ak nu ma koy defee ak nu ma koy waxee suñ toogee ñun lu ñu neex la ñuy waxante mais bu ñu aman am na foo xamante ni dama koy jox li mu moom parce que tamit waaw mooy loolu wala noonu la demee mais bu ñu toogee nii nii nii fii ay ñun ay morom doo fi daje ñun ñu nekk fii yëpp ay morom lañ <coughs> waaw noonu la demee mu nekk na nit ku baax nekk nit koo xamante ni tamit xam nga yëfu jàmbur jaral ko yëfu ku nekk ma koy ñaan nag bis bii nii bisu la degeer bii nii bu mu yolom quoi bu mu yomb waru mën a yomb ci moom lay commencé nag war a bañ yomb moom waaw bu diriger rek war bu yombul rek moom du yomb te bis boobu dañoo bëgg bis boobu noonu ñun dañoo ñor barke Seydina Muhammad te bis boobu dañoo bëgg xam nga affaire yam fi daal mu jeex waaw mu yam fii mu jeex voilà waaw noonu la fa demee ko lan ngeen bëgg mu yam fi noon lam booy bi li muy def nii mu yam fi. booy. booy ñaa man tudd ma booy ñaa ba lamb ji passé man Maguette Seck laa tudd ba lamb ji passé te billaahi wallaahi wa taala li may wax sama xol laa ko billaahi wallaahi. maa ngi ñaar ku njëkk a tudd Boy Niang. maa a tudd Boy Niang li ma bëre si lamb nag moom xam nga mooy loolu champion la maa ngi koy nuyu au passage mais dama koy xamal ni ko moom xam nga arrête quoi waaw yam na quoi waaw waaw. benn affaire rek laa bëgg Boy Niang xam ko gis nga nit gone day moytu gone mbooye ko ci taatu ndaal yi ñun nunu moro moom. maanaam gone mbooye nga xaar ko ci taatu ndaal. waaw. est moom gone mbooye la. Boy taxaw dëggal boppam. Lac de def li mu war a def faxas ko mu jeex xam ne dafa ne géejawaay benn leader ci des benn leader waaw leader boobu nag balaa. non non waaw si Balla. waaw Balla Gaye moom mun nañoo wax ci moom moom. waa Balla Gaye mbër la euh, am na ay qualité te nit ñi bëgg nañ ko daal. lu ngeen seq. sama waay la yàgg nañ ku baax la wax dëgg yàlla waaw. maa ngi lay bëggee. sant. lin buñ ko waxee Talla Ndiaye ñu rappelé nit ñi rek combat Yékini ak Balla Gaye yaakaar naa su jumul moom moo ci amoon soog wallu noonu la demee. Mm-hmm. waaw maa si amoon waaw. mbaa léegi yaram bi lépp jàmm. yow tawfeex léegi lépp tawfeex waaw léegi li may laajte mooy sa digganteeg Omar parce que ñu bëri dañ ne ma saa yu génnee këram bu demul fen mu ngi fi ak yow. waaw non Omar sama xarit la dañoo yàgg eh, lu yàgg dëgg la waaw sama xarit la xam rek mooy man maay moom. looloo indi lii moo tax saa yu génnee rek ñëw si man moom tamit saa yu ma génnee rek dem si moom moom laa xam Mm-hmm. mu mel ni kon daal moom la la dal ci kombaam dalu la mu fàtte la wala. non kooku sama xarit la ndogal yàlla li ma dal te kii mosuma fàtte te du ma fàtte ba mu kii borom baax la ñun ko baax la du fàtte kenn noonu la mel. Mm, dafa simple baax gis nañ gars yi itam garam place fii ni muy xumbe ah daa mel ni yi samay gars la ñëpp borom baax lañ xam nga rek sama gars yi ñoom Sengam Bouba Lamine <laughs> Pape Diané Lomfor gars yi ay borom baax lañ fii la xam nga rek mooy loolu fii moom bérébu sëñ Fallou la ñu ñëpp ay taalibe lañ moo tax fii ñëpp fii la ñuy daje fii la ñuy waxtaane la ñuy defee lépp waaw sama gars yi moom ñëpp ay borom baax lañ sérieusement. Mhm. maa ngi lay ziar. ziar naa la Pape am naa jàmm tawfeex dund ngi dund dund. déggal maa ngi sëg na taal bi Balla Gaye. waaw man si Balla laa jébbalu <laughs> mooy sama sëriñ bi. depuis kañ. non ça fait ah. dafa yàgg. semaine ñaan laa jël sëriñ damay nag. sëñ bi ñaan gi mu ñëw combat bi passé. sëñ bi daa duggoon xalwa daa duggoon xalwa yëgul combat bi sëñ bi yëgul combat mais xalaat na fex nga bëriwaat balaa saison bee jeex. si ñoom dama jël si ñaar ah, koy garanti. non waaw waaw dund. ndam bu soobee yàlla lu mu song dina ko daan. incha allah na sax ngoon yaa ngi ñëw fii ngeen toog di garam place Maguette sek ñoom Lamine Lomfor gaa yëpp a ngi fi. mu mel ni bala daal nitu démbam daa mel ni fàttewu leen de. non ñi sama waay xam nga Balla moom boo fa dundee xam nga dama koy dund bi dama fi dëkk. mënuma am mu gën a rëy géejuwaay te ñii nga gis ñi ñëpp Alioune Seck ñoom Lamine Golo ñoom Bouba ñoom Lomfor ñoom Cheikh ngaam xam na ñoom Maguette Seck ak Cheikh S ma nii ak Lin samay waa lañ quoi yàgg nañu yàlla boole nañu bu ma daanee sax fii laa parce que xam nga Lin moom dafa ànd ak man démb tey doog a ñëw yàlla dogal tey nag xam nga mu nekk ci loo xamante ne. yàlla dogal ma bëree moom soog boobu ba léegi nga xam ne nit boobu yàgg nañu ma ak moom waaw xam nga du tey quoi mu téye ma ma téye ko et voilà loolu moo tax ma fi ñëw sax. sa combat ak Yékini la amee woon soog bi. waaw ci la amee woon soog bi fii at leem la tamit. fii at allah fi la ñuy toogee quoi waaw ko ñaanal wér bu moom nee yaay moom mooy yow. moom sama waay la sama waay la sama waay la. léegi ana ñu dem ndogu. gàll incha allah waaw. mais bëgg naa ci yow. mais yow yow borom baax nga yow amal jàmm rek. <laughs> kenn gënul incha allah ñoo far ci kanam. aja aja ci kuy bees bi aja ah, mo ko may courage ma ngi sëg mo way kenn kenn ko ma sa pare mbaxal mi mbaxal mi boo ko ràccee dafay gën a neex mbaxal mi loxoy loxoy mbaxal mi waaw waaw ay eh, eh, buuri mbaxal ko ay waay eh Balla Gaye de mbaxal waaw waaw buuri mbaxal eh, sama waay nga mbaxal xoolal bi Mbaye ziar naa ziar naa la doom day yaa ngi toog ak sa doom day waaw maa ngi toog ak sama doom day sama ñaari doom day jërëjëf sama doom day la mu tamit lépp jàmm na ko dóori lépp taw bi a si Omar Omar borom baax nit ko la moom champion la quoi moom wax dëgg yàlla borom baax la parce que yaatal na ñëpp ci boppam su ko neexoon mu ñoddi affaire Cristiano affaire Messi affaire Sadio Mané mais moom daal Baye Fall la quoi na trop barki borom Touba di ko ñaanal jàmm rek di ko ñaanal mu ne waa roi des arènes bi ak mboru géejawaay yëpp am jàmm quoi. Mbaye di foncé moom daanaan la. Omar yaa ngi Mbaye. école ba la nekkoon suñu école la nekkoon suñu école la nekkoon waaw. ah Mbaye kon jëloon naa jaar école. Mbaye géejawaay dëkk Mbaye géejawaay dëkk jaar na école ba muy nekk commencé ñëw ñu jëm. lu sa waay mu ne bandee la fa jëlee. Lamfor moo ma liggéey pour ma jógee ba mii ne de ma liggéey quoi <laughs> waaw waaw. ak sama doomu ndey ma naa ñibbi si Baxdaad tabax xam rek benn instant. moo tax nga bàyyi waaw moo tax ma ah? Ah, daa tas. kiri dafa mujj tas quoi dafa. Ah, <laughs> waaw ñu ngi lay siyaar bu baax a baax. yaa ngi toog sa doomu do Omar. waaw kii moom dafa nekk suñu mag doon suñu xarit suñu doom yaay suñu lépp daal kon bisam mënuñu lu dul wax ci liñ ci xam mooy borom baax la nekk na suñu mag uuf ñu ñun ñëpp kon dañ koy ñaanal moom am tawféex rek am jaamu ndax moom li ci xolam daal woo suñu borom fay xam nga jàmm rek lay am incha allah waaw ñu yàlla trappul la trappul ko trappul ko wala nga ko wala nga ko